ñoo ne ñu ngi jël si waat si ñu ngi jël si waat ak si ah, risaala Fawaakihu si juróomeel darsu bi jàngoon nañ li nga xam mooy wëdd yu lan moo koy waral ak mën yu lan moo koy waral leeroon nañ xale bi nga xamante ni judd na si diggante ñaari way dencante xale boobu noonu maanaam maam bu bu niroo kenn naka la def ba niru moom wala ba ba ba ñoom ñaar kan la war a niru yëpp leeraloon nañ ko mu ne wa amma damul istiaada waaye wa amma damul istiaada waaye daratu jor ngeen fay jëbu dana war minu si moom alwudu un jàpp waaye waaye saxaabu sopp nañ laxa la waaye saxaabu sopp jàpp la laxaa ñeel daratu di ci mu ne ah, sopp nañ daratu jor sopp nañ si jàpp ba pare jàpp war na si lii loolu lu bu ko waxee na fekkee lu la wax faaw mu laaj dégg-dégg mooy ne deretu jonge bu ñëwee bu fekkee ne lu muy ñëw matul bu fekkee feebar la te lu muy ñëw matul ba maam lu muy ñëw matul li nga xam ne mooy genn wàllu jour bi bu boobaa loolu ndax jàpp dafay war amaa nag bu fekkee li muy ñëw mën naa genn wàllu jour bi wala lu ëpp si jour bi dañuy sopp si moom mu jàpp deretu jar ngeen nag kan moo koy génn mooy jigéen si jigéen lay génn mooy bi nga xamante ni génn nañ mbërëg bu pare si fan yu mbërëgam bu jeexee booba lay génn comme ça bu fekkee moom aadaam dafa baaxoon gis ma aadaam ay juróomi fan la mu gis ko juróomi fan daggul mu yokk si ñetti fan ñetti fan yooyu bu daggul li li xam ne mooy génnaat si ginnaaw ñetti fan yooyu loolu feebar la mooy deretu jor jorngel ji wala moom day doog a gis mbërëg mu gis ko fukki fan ak juróom ñëw mu dagul bu boobaa loolu li nga xam ne mooy ñëw si ginnaawam loolu ah, feebar la loolu mooy deretu jongel bi ñëw si jigéen gi nag bu fekkee dafay ñëw bu ñëwee lu matul genn wàllu jour bi bu waa loolu dafay bu matul genn wàllu jour dafay yàq njàpp amaa nag bu fekkee dafa ñëw si li nga xam ne moom ah, mën na genn wàllu jour bi wala lu ëpp jour bi boobaa waaye sopp nañ si moom mu jàpp amaa nag barab bi nga xamante ni moom du jàpp sopp sax mu jàpp mooy bu fekkee day ñëw na bi yëpp moo tax mu ñëw si suuf mu ne wa amma damul istaadata waaye dam euh, deltu jongeen waxu moom xaarida di génn la min marati si jigéen gi ziyaadatun yokku ala ayaami ala ayaamin ala ayaamin aadaatiha si ay fanu euh, mbërëgam aw si tahaarihi wala fañu fanu ala ayaamin aadaatiha si fanu aadam euh, ala ayaamin aadaatiha si fanu fanu aadam aw istihaara wala si fan fanu mu ñënd ko yi mu ne bu fekkee ne euh, nit ki jigéen gi mu ngi gis li nga xam ne moom mooy deretu mbërëg ba nga xamante ni maanaam fan yi nga xamante ni moom la ko doon gis maanaam aadaam jeex na maanaam juróomi fan la ko doon gis mu dem ba juróomi fan juróomi fan yi euh, daggul mu yokk si ñetti fan yéen ñetti fan bi si yokkee euh, bu daggul li nga xam ne moo ñëw si ginnaaw loolu loolu loolu feebar la mooy deretu jorngeel naka noonu bu fekkee ne dafa maanaam da gis toolu fukk fan ak juróom daggul la sa topp tamit loolu loolu feebar la moo tax mu ne loolu bu fekkee dafay ñëw dafa war bu fekkee dafay ñëw loo xamante ni gën wàllu jour bi bu war mu euh, mu jàpp wala bu fekkee dafay ñëw loolu xam ne matul euh, gën wàllu jour wala lu ëpp si gën wàllu bi boobaa dafay dafay sopp mu jàpp rek sa waxtu waxtu moo tax mu ne fa fay jëbu dana war mu si mu wàllu wutu njàpp faqat dong loolu nag warul sangu waaye njàpp lay waral maa bu fekkoon ne mën nii la wala wala bu fekkoon ne mën nii la wax baaxoon nañ ko yooyu noonu yooyu mooy waral loolu mooy waral li nga xam ne moom mooy moom mooy sangu mu ne ah, a faqat donc alal masuur si wax si ji gën a siiw ah, alal masuur alal masuur masab si lu gën a siiw si mi loolu nag moo moo gën a siiw si ngir mi ne moom du du du li nga xam du moom jàpp lay def bu ñëwee yaakaar bu nekkee naaq dañ daji yàq njàpp yàq njàpp li wut naaq yàq yàq li wut ñeel njàppam bu fekkee dafay yàq njàppam nag loolu loolu loolu njàpp moo sa war wa zalika ni ko noonu bi an yaxu daa si moom mu génn mu ni si moom la ala waji salat waaye waxuma si anam toxal mooy bi an faari xaatam ta tàqali ko moom aksara zaman waaw lu ëpp si ah, jamono ji aw xadra wala mu àttan ala rafi si faj mu ne bu fekkee ne kañ lay kañ la ko war a jàpp mooy bu fekkee ne lu mu tàqali ko moom moo ëpp si jamaam lu mu ñëw matul genn wàllu jour bi boobaa loolu dafay war mu jàpp te mu taba may si anamuk toxal amaa nag bu fekkee ne moom mën na ko faj sax te faju ko boobaa loolu dafay war mu jàpp chaque bu ñëwee waaw moo xam journée bi yëpp lay ñëw wala genn wàllu jour bi lu mu mën di ñëw bu fekkee mën na ko faj te faju ko rek boobaa dafay yàq li nga xam ne moom mooy njàpp boobaa dafay yàq dafay yàq li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy njàpp mu ne wa amaalaw lazama euh, bu tax bu taxoo nag moom euh, euh, wala nisfa saman dile gën wàllu dile wala nisfa saman dile gën wàllu jour bi la falaaj bu duwaar ala sama minu sama al wudu njàpp mu ne bu fekkee dafa dafa taxoo ak moom li xam ne mooy gën wàllu jour bi loolu njàpp njàpp bu njàpp warul waaye nag dañuy sopp rek mu njàpp waxoon nañ moom bu fekkee ne dafay ñëw li nga xam mooy gën wàllu jour bi wala li nga xamante moom mooy ëpp jour bi bu baax loolu dafay war mu njàpp Ah, dafay war mu mu jàpp mu ne eh, eh, eh, mu ne wayen maay saabu ah, ah, sopp mu ne mu ne mu ne ñëw si kaw mu ne wali salasil bawli ñeen kii toqal kii ki toqal tuur ndox ah ay taw daa mu jàppali ko salaati ñeel bépp julli mu ne ki nga xam dafay toqal tuur ndox dafay war mu jàpp bépp bépp julli waaye nag ni mu ko waxee demeewul noonu ki nga xamante ni nag dafay toqal tuur nekkul ne eh, eh, maanaam nekkul ne eh, chaque waxtu rek mu jàpp ba wàllu dafay métti moom ki nga xamante ni dafay toqal toon ndox moom fekkee li nga xamante ni day ñëw lu ëpp si boobaa loolu day ñëw li nga xam mooy jour bi yëpp boobaa loolu du jàpp amaana fekkee day ñëw lu ëpp jour wala genn wàllu jour sopp dañuy sopp mu jàpp boobu dañuy sopp rek mu jàpp waaye jàpp waru ko naka noonu te bu fekkee muy ñëw matul genn wàllu genn wàllu jour boobaa boobaa boobaa loolu mooy war mu jàpp moo tax mu ne wali wali saabi salas ilma saabi sa wala saabi salas wala salasil bawle ñeel na borom ak uh, uh, toxalu ton la uh, bi kasri bi kasri bi kasri laam si kasri laam yi ay lu mus nam sax si ñe jëmm alati bi nga ne xaxaroo la mu ne fa la fa salasu salas nag ismu faal ismu faal la mooy ki jëf waxoo moom almunasima yu taxaw xam ne dafay toxal ton moom bu fekkee ne journée yëpp lay ñëw du jàpp bu fekkee ne nga xam mooy lu ëpp jour wala gën wàllu jour bi waa si moom jàpp waaye fekkee lu mu ñëw ñu mata gi waa suuf boobaa boobaa day jàpp sag bi ñëwee mu ne wala zaalika wala zaalika looloo tax wasaaka wasaaka lii nag fi surten si ñaari melo la ay ñu laazim ha mooy bu tax ak moom julli zamanin mooy lu ëpp si jour bi aw na si wala ginnaaw jour bi maalu barab bi ñu ko soppee nag ilaa ay soqalo mu lu mu tat ala si moom mu ne bu fekkee ne fa Euh, fafa lañ sopp mu jàpp mooy bu fekkee ne euh, maanaam dafay ñëw gën wàllu sur wala ëpp sur yi boobaa loolu dañuy sopp rek mu mu jàppoo naka noonu bu fekkee ne euh, njaar maam li ñu wax dañoo sopp mu jàpp bu fekkee dafa diis si moom boobaa du jàpp te boobaa dañ ko xëy boobaa bu fekkee dafa tar si moom rek boobaa loolu du dootu jàppati mu ne tanbihaat li ay yeete a al awal bu si njëkk olama xam nañ yi ma xaral naa ci lañ leeral bi ci moom kalaam moom seen fi wax waxi a taalif kat bi min wujubil wudu i si war ak njàpp a alama si na xam ne alama xala ci bu attan alama alama alama faaraq ci bu tàqalikoo moom ak zuruhu li ëpp zuur bi aw xadra wala bu attan ala rafi si faj ko wa xadra wala bu attan ala rafi si faj ko mu ne e, ban taalif kat lu ñu wax ne xamee nañ si ne bu fekkee ne nit ki dafay <clears throat> maanaam dafay feebar bi nga xamante ni maanaam feebaru wala yu demee kay mën nii wala yooyu noonu bu boobaa bu fekkee ne mën na koo faj te faju dafay yàq njàpp wala mi nga moom di ëpp jour bi dafay yàq njàpp amaa nag bu fekkee man bu fekkee mënu koo fañ ne loolu waxoon nañ tax waxoon nañ li nga xam ne mu ne wal isa dañ sopp mu jàppoo alama si nga na jëllu jëllu jëllu zamanin la lu ëpp jour bi aw bu fekkee ne nag lu mu ñëw si jour bi lu mu ñëw motul genn jour bi la wala ëpp jour bi dañu sopp mu jàpp mu ne <clears throat> indi fa tanaaxudi euh, li nga xam jëñoog ah, wuute alati ala bi nga xam ne eh, idaahu woote na babaadum eh, ñenn ñi fi kalaami seen wax mu ne mu ne li nga xam ne mooy borom taarifkat bi wax na ko mooy ne sopp nañ mu jàpp war na mu jàpp loolu dana indi tanaaxut waaye ñoom lu ñu wax moom lu taalifkat bi wax moom lañ déggul ndaxte taalifkat bi dafa wax ne ah, sopp nañ mu jàpp bu fekkee ne moom lu mu ñëw man na eh, gën wàllu jour bi wala ëpp jour bi boobaa dañ sopp mu jàpp amaa nag bu fekkee ne li mu ñëw moo gën wàllu jour matul gën wàllu jour bi wala sax ma li muy ñëw matul gën wàllu jour bu baax loolu dafay war mu jàpp loolu la taalifkat bi waaye moom la wax li taalifkat wax moom la déggul moo tax mu indi li nga xam ne mooy tanaaxul mu a asaani ñaareel ba xawlu musannif mooy waxu taalifkat bi li sala si ñeel li sala si ñeel li ah, salasil bawli ñeel li salasi bawli ñeel ah, borom kii toqal tuur ndox ah, ka ka nekk awlaa li gën a yey mu ne mu wax ne wala saaxibi salasi nee na borom toqal li yes mu la ngir mu làmboo zaahir ahadaasi mboolem toj yi mu ne li nga xam moom mooy bawla moo di tuur ndox aw riixan wala bawla moo tu aw riix wala ngelawal amosi wala mosi amuni wala mëni mu ne li nga xamante moom mooy li nga xam ne moom mooy taalif bi mu mooy ne Euh, mooy ne ki nga xam ne dafay toqal li nga ne moom mooy tur ndox euh, li nga xam ne mooy toqal tur waaye nag loolu li waroon wax mooy borom ak toqal ngir ngir li nga xamante ni moom mooy li toqal yëpp dugg si gi mën yëg mos yëpp euh, dugg si mu ne fa inna jamian naka mboolem yi sabab xam fi adami naqadin fi adami naqasin ñàkk yàq njàpp al alzim nga xam ne xaraja génn minaa si moom ne fa inna jamian naka mboolem yi sabab moo xam fi adami naqadin fi adami naqasin ñàkk yàq njàpp mu ne fay na jëmee naka mboolem bi sawa on way yemoo la fi adami naqari si ñàkk yàq njàpp alis bi nga xam ne xaraja génn mina si moom wala si mun aji taxoo wala si mun aji taxoo wala nisba samane di la gën wàllu euh, jour bi de xayu xayu sa xayu sa bu lootee ànd rafet si faj ko mu ne euh, maanaam li nga xam ne moom mooy génn si tur ndox bu fekkee ne nit ki dafa root dafa loot si faj ko booba loolu di li loolu du yàq li nga xam ne moom mooy njàpp waaye nag bu fekkee ne bu dafa la boobu waaye bu fekkee ne lu muy ñëw euh, jour maanaam euh, lu ëpp si suuf lay ñëw wala gannaaw suuf bi lay ñëw boobaa dañuy sopp si dañuy sopp si moom euh, mu njàpp mun a amaa loo xadara waaye bu attee attane àla rafet si faj ko bi tanaadu mooy bi tanaadu mooy mooy mu wut li nga xam moom mooy moom mooy saafara aw aw sat wala jàpp jàpp jàmm bu baax fay fay na ko mu yokkum daa nekk naax daal ci yàq yàq jàpp mu ne bu fekkee loolu feebar la te moom mën na wut saafara wala mu wut jàmm di seeg moom te bu seeg moom jàmm bi dana dina loolu feebar boobu dina dañ bu baa loolu bu ko deful loolu dafay yàq njàpp boobaa loolu dafay dafay yàq njàpp comme ça daal bu fekkee da mën na koo faj te faju ko daal wala mu man si am benn pexe boo xam ne mën na ko si def te def ko si mu kon ne di ñëw saa fi ilaa fi mu doti tataawi euh, li mooy si diirub laabluga mu ne amadotoon istilaay diirab la diirab la modoto istilaay amatin diirab laablu jaam nag almusra bañ jënd mu ne jaam nag euh, bu njëkk ba dafa dafa ba nga xamante ni bu nit ñi jënd jaam maanaam dañuy dañuy dañ dañ koy dañ koy laablu ne dañuy ah, maam jaam Eh, seen sang yi dañ naan sëy moom moo tax ñi bañ euh, loolu maanaam dafay mujj indi li nga xam ne moom mooy euh, euh, famille bu jaxasoo ngir ne kooku noonu jaam man man na sang bi mën na mën na sëy moom kenn jënd ko te laabul mu sëy fekk jaam bi fekk sang bi sëyoon ak moom te bu amee doom doom jooju noonu gis ne kooku ki nga xam ne moom mooy sang bi moom moo ko moom loolu lañ si bañ moo tax bu buñ jëndaan li nga xam ne moom mooy jaam ñu koy ñu koy laablu mu ne mu ne wa tafsiru teqale gi nag fi salasin si toqal tariqatu magharib euh, tariqatu maghariba teqaleb waa maghriba la waaye waxtasara yem na alaa ci moom xaliloon xalil fahiya moom almashhuratu mooy li gën a siiw fil mazhab si ngir bi teqale bi nga xam ne waa ma waa maghrib teqal nañ ko comme nit bi toqal deme demee ni ki tuur ndox wala dem duus wala ma nii wala ma jiw bu boobaa toqal boobu noonu moo am ñeenti anam moo ñeenti anam yu ñu teqali woon waa ñoo ko teqali xilaafan wuute ne xilaafan wuute li tariixil araaxiin ci yoon waa xiraq waa xiraq nuñ ko teqalee mu ne fa istihbaabi wudu i sopp njàpp fi kulli surat si bépp melo mu ne waa maghrib ñoom niñ ko teqalee mooy ne toqal daal mën a génnee dafay dañuy sopp nit kii mu jàpp moo xam journée yëpp la wala nu mu mën di génn daal dañuy sopp mu jàpp waaye nag loolu nekkul li gën a siiw li gën a siiw daal mooy ne bu génnee moo am ñeenti anam mooy comme ni ka waa maghrib teqale loolu nag moo gën a siiw nit ki nag buy def fatwa mu def fatwa ci lu gën a siiw moo gën muy def fatwa ci loo xamante ni gënta siiw loolu lañ jotoon a indi si darsu juróomeel bi lu si jub si yàlla la lu si dëng si ñu la suñu gàtt xam-xam néew fasaa in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh